commencé ci waxtoom lay ñëw moo tax parce que comme moo xew te moo am dañoo mujj jël suñu thème bi ñu waroon a kii ñu jël delloo si ko pour mën a sensibiliser nit ñi aussi delloo si leen ci anam yi nga xam ne ku ci dem dinam loo dugal ña nga bàyyi foofu ba ñu mën a xeex ak virus boobu ba jàngoro boobu nga produit yi ñu joxe pour ku nekk def ko ci loxoom ak mouchoir yi ñu joxe lépp pour sensibiliser nit ñi la waaw parce que loolu rek li ñu ci mënoon a apporter aussi li des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla bu ñëw di yee nañ si diine occasion la woon nag comme que mbiru coronavirus bi moo am te ñëpp ragal ko pour ñu silang nit ñi si lan mooy coronavirus bi ak lan la si diine wax ak lan lay war a mën a moytandikoo ba duñu dal loolu donc lu solo la thème ren bi dañ bàyyi thème officiel bi sax def ko rek coronavirus parce que occasion la woon ku dajale mbooloo bu toll nii wax leen lu leen amal njariñ te jamono ji luñ amal nit njariñ def pour coronavirus moo tax bi am solo lool tafsir abdourahmane gaye